ëxlu moom mooy Assane Mbaye xam nga bokkoon ci benn groupe bu ñuy wax ëxlu ënd mawti mu dem ba groupe bi loow man kese ma des yi mhm. ma cent tudde ko ëxlu ënd ihsan mhm. jooba ndoog ñu bëri fii ci hip hop galsen xam nga dem ba 2018 daaw mhm. ñu def management deux def crew quoi ok yow kañ nga commencé rap exactement. bon année deux mën nañu wax pratiquement. Mhm. ñu téye maay di ko di ko yëg quoi. Mhm. ay deux mille deux. deux mille deux mais quatre vingt dix neuf commencé foo quoi école ouverture foo. kon kon yow si old new school yi nga bokk deuxième génération hip hop. waaw deuxième génération hip hop. parce que ok ñu bi ngay débuté hip hop sa première scène. bon ba may débuté hip hop sama premier scène lycée technique la André ben benn ouverture foyer mhm. xam nga man fans BMX laa woon ñoom ñoo ma poussé may rap mhm. boobu maa ngi bind jamono yooyu da ngay riime rek mhm. ay dans la vent temps ran ban xam nga di waaw mooy hip hop bu yàgg ba waaw hip yàgg ba waaw door laa tàmbalee ok kon sa euh, cursus scolaire aussi lan nga si mun wax lu fa la bàyyi école bon maa ngi jàng naa ba seconde 10 secondes parce que li tax ma laaj la loolu ëxlu dafa nekk benn rapport intellectuel boo xam toujours day ci ay di yang ci ci ay événements te bu ñu nee ëxlu ne social euh, explique ñu ban rapport am ak social ak yow la moo la dugal ci social lu bëri bon social moom yàlla moom moo ko jëkk santaane tane sa morom dimbali ko quoi ñun ñun ñun dañuy dund dund quoi mais dañ koy dafa war refléter wu ba si li ngay dund xam nga nit ki bu gëmee yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg buy teg concert sax du teg dil kenn buy buy organiser tournoi du teg dil kenn xam nga da nga organiser yoroo dara nit ñi ñoom ñooy jëlaat seen xaalis mm-hmm. di la ko jox pour nga joxaat ko laa jeunesse comme mooy tournoi yi may teg feu de camp yi mm-hmm. man du ma ci dara barki Seydina Ousmane man du ma ci dara bu ñu jógee ci côté social bi ci côté vie humaine bi dox lu nekk ku bëri problème bon bëri problème waaw nit ku nekk ak ni ngay <laughs> gisee mais man au fond de moi. man je toujours la vérité parce que ba ma ko jàngee en quatrième. Mhm. Euh, CE1. Mhm. ñu jàngal ñu quoi qu'il m'en coûte je dis toujours la vérité morale. boobu ba léegi dama ko jàpp quoi mënatul dañ moo tax. no mais dawul da nga métti yow am non dëgg dëgg dafa métti. non c'est-à-dire mais am na yenn dëgg yoo xam ne mu nga koy raay raayal. mais fois dañuy gis dëgg bi ci dëgg bi nga koy jaaree. non mais bi nag loolu la ko yàlla bëggee. ok mais ñu gis ni ëxlu yow. c'est-à-dire ëxlu ci mbedd mi ak ëxlu ci kaw seen bokkul tey jii lu ci mbedd mi day cool day day nice quoi mais bu yëgee ci kaw seen day mel ni dañ ko soppi quoi cest à hip hop moo waral loolu wala nu mu demee. non c'est que hip hop ñun. Mhm. man est-ce que yaa mos nga ma fekk fenn ma toog naa damay freestyle damay. non non man bokk ma ci côté boobu. Mhm. game man ak maaj sax dañ ciy am problème parfois te man kay yow xale nga mën nga foo. mais man léegi paalaa man man du ma man dëgg rek quoi ci hip hop man dëgg rek même bu may égo trip sax dëgg rek waaw ñu ñëwaat tuuti avant du def cours yi nekkoon nga si benn concept clochard yow ak ñagas ba ngeen euh, amul lu ngeen jaarale woon monsieur le maire <laughs> est ce que li tuuti événement boobu noonu quoi non xam nga nag lu ñaaw moom kenn du ko kenn du ko nettali mm-hmm. te pour wax la aussi mm-hmm. loolu comme bu waroon amaat tey mm-hmm. man ci serai prêt pour pour ko la tax parce que instant xol bi doon wax xol yi doon wax xol yi nga dem Guet nga gis <laughs> benn xale di dako ne ñun ko eh xam nga li may bañ a tudd quoi du woon pour bañ nit ki wala pour man mooy loolu quoi mais dama jàpp ni mom sa engagé ñagas man ci beneen boor aussi parce que dañu gis ni yow dama doon baat dama doon baat parce que man mhm. su ma yéegandee ak yow man dama gëm comme soldat laay doxe quoi mhm. dama gëm comme binôme suñu àndee nii mhm. yow loo def dara je te protège ok waaw mais réccu naa ka nag yeah, yeah, waaw parce que jot nañ ay affaire ñu ni bon peut être boobu xol yee tàngoon mais def ngeen excuse balu quoi mais cloche art bi nekkoon benn concept bu nice ngeen ya. eh, ko doon def cloche art waaw cloche art ya. ya, ce qui cloche de l'art de l'art te loolu concept la bu boo xamante dañ ko dañ ko tegoon mhm. verbal la woon d' abord mhm. kenn pratiqué guñ ko woon mhm. nekkagul woon quoi

Modou maa ngi siyaar ñu ngi siyaar gas lépp jàmm sant euh, moom ñu sa saayit waaw waaw waaw yaa ngi Médina buntu Médina kon kon ñu ngi diggante Oclair ak Médina waaw gis nga ok ñoo ñu séparé yémaan nice nice ni léegi Modou euh, bon dañuy ñëw ci côté deux def cours yi euh, ñu nga composé que yow ak Euhlou mu nekk benn esprit bu nice boo xamante ni nga koy partagé yéen ñaar quoi te li may wax toujours rek deux def cours yi gëm naa ni bu dara di génnaat saint ñoom lay nekk quoi explique ñu deux def cours na nga def ba rencontré ak Euhlou avant tout d'abord may nuyu gaay yi eh, bëggee TV bi mooy loolu di di leen di di rafetlu initiative bi tamit mooy loolu bëggee gas bon Dead of Crew ni mu ni mu demee bon euh, rencontre la ak sama grand xaw mm-hmm. moom sama grand bu nice la yàgg ma bëggal boppam pratiquement moo may dox si sax mën naa moom moom moom moom mooy jóge oculaire di dox si ba mel na suñu track yëpp sama gaale lañ ko liggéeyee mooy loolu Euh, bon on a débuté avec euh, gis nga Sénégal ni mu demee nii. Mhm. bon mu am lu mu joxé. après mon mu bon pourquoi pas bay maj ñu taxawal ben affaire ma ni ko waaw war na mën a nekk xam nga fekk na à part comme li ñagas doon wax keroog Néna ëxlu jàngalu la rab yow jàngaloo ko rab mhm. moo tax euh, seen link bi euh, day garaaw quoi dox daje la ku nekk dafa mën rab à part après ñu daje moo tax tout le temps ngay gis rek kaw seen <laughs> ñuy ñuy ñu ñu ñuy joxe lu li nekk si ñun rek la ñuy joxe genre ku ne dafa indi benn touche quoi ngeen composé ko mu nekk doo def courrier la demee yenn saa yi duñu sax yëgoo kaw seen duñu waxtaan dañuy ñëw rek ku nekk yéeg après résultat gars yaay gis. ok loolu comme li ma wax ëllëg laa lay waxaat yow it ma jóg. boo ko gisee vie naturellement nii. nekk quoi ni mel nii la mel mais kaw seen nga gis mu subeeku. xam nga nu muy demee genre. seen entente boobu ngeen am ci kaw seen bi quoi. dëgg la waaw mais euh, mooy li ma la wax rek euh, liggéey la woon d'abord ndax moom dafa liggéey côté am man ma liggéey sama côté moo tax day yomb quoi complicité bi day yomb ñoo bokk li ñuy def hip hop la. xam nga bu nu yéegee xam na ni ñu war a doxee ci kaw seen grand la ma ni booyam laa xam nga mais hip hop amul booya bu nu yéegee kaw seen ñun ñaar ñëpp grand lañ booy ah. <laughs> loolu léegi bo ku nekk day xam li ko war rek def ko moo moo tax muy nice ko ok euh, ñu gis ni seen sound is ëpp ci thème ngeen koy def dëgg la Sénégal Ndar xam nga mais genre cest à Euh, yéen deux Dof Crew euh, seen rap dafa c'est-à-dire dafa positif wala. Hmm. parce que gisuñu leen si afro ci ci trap yi. gisuñu leen si yeneen bit yi ci bit <laughs> underground leen gis. bitu euh, comment dirais sax bitu hardcore bi. ba léegi jugu leen fa quoi. genre seen foofu ngeen ko kale wala am ngeen beneen vision. non non non non ñun duñ tënk suñu bopp ah. te bon ndar bi boo xoolee pratiquement. du du du du hip hop carrément. Mm-hmm. ndax genre dancehall lañ ko lañ ko tëgg. am na ay yeneen son yoo xamante ñun ni daal fii la ni yam gars yi nan ceene rek gars yi nan ceene rek lu lu mu lu mu laaj rek lu mu laaj rek ñun dañ koy joxe musique la quoi musique la xam nga tënk ñu suñu bop ci lenn te dañu gis ni musique bi dafa gën a avancé xam di laaj yeneen lu mu laaj rek daal ñun dañ koy dañ ko koy jox. yo maan kon kon kon daal doo def kuru. Ah. tënkul boppam fenn. non non non non non. ok man kon ñu ngi ay rappeur lañ nag quoi. <laughs> yo maan <laughs> mais ay MC lañ. ay MC ngeen quoi ay MC lañ. léegi dañuy tourné waat ñëw ci ëxlu. Euh, ëxlu euh, bii dañuy ñëw ci festival bi ngay teg chaque année. Mhm. muy festival bay sa weewu tànk. Mhm. pourquoi bay sa weewu tànk. bon parce que mooy li ma comme fi ñu jàlloon rek. Mhm. yàlla moo bëgg loolu. xubul watani minal iman sax bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk mais da nga koy tàmbalee sa bëgg sa bopp mm-hmm. bëgg sa kër mm-hmm. moo tax parfois am na benn couple bi ma wax ma naan dëkkaale li la wër mm-hmm. tàmbalee sa biir kër set setal tilim jeex jëmbat garab kër féex bul xaar ñu lay woo dëgg la du ay foo maag yow a ci bokk yam ku dëkk ci gox bëgg fa jàmm bay sa weewu tànk boo amul ku lay defal dox ba ngay ami tànk boo mënul ku lay defal pour wane nit ki. Mhm. fi nga nekk sa entourage yaa ko war defal. sa bopp quoi ok bay sa wew tànk nekk si ñaata édition. bon cinquième édition. cinquième édition euh, ñu gis ne bay sa wew tànk nekk festival boo xam te ni festival gënu ko mag fii Saint-Louis damay wax parce que euh, da ngay def volet social pare si def concert te stratégie yi teg ngay teg. ñen ñoo sa partenaire ñen ñoo lay jàppale si biir bay sa wew tànk. bon bay sa wew tànk su may wax partenaire am moom. Mhm. premier partenaire mooy hip hop Saint-Louis. vraiment. parce que ci fay artiste chaque année. Mhm. gars yi. ñoom ñoo may woo sax pour ñëw. pour ñëw jouer si quoi. pour parce que du sam man jàppeewu ma ko sama festival. Mhm. moo tax mooy festival boo xamante ni. Mhm. gars yi chaque année ñun ma mënul nekk. 50 mhm. groupes di jouer fii mënul nekk te chaque année 50 groupes jouer. bu fi 2S ñëwoon léegi. wala TFM wala beneen kii. léegi bu leen jouer loo benn sang ñu jouer ko. mais parfois da nga siy gis nag ñu dëgër boobu bu ñu ñëwee du xool esprit fête bi quoi ñoom seen bopp kese la ñuy te fekk yow ki teg concert bi dafa ñëpp jouer mhm. comme ni mu la woowee noonu lay woowee nii mais daaw gis nañ am na ñu si doon jàppale ku mel ni pif daaw dugal na ci loxoom bon mais ba ci ba ci loolu sax amoon ay retombé ay wax gaa yi ne ëxlu dafay coaliser léegi ak politicien justement mhm. man ak pif mhm. pif daaw ba muy ñëw ci concert bi ba muy ñëw Madiop doy na ma seede maa ngi kër Madiop invitation laa ko joxoon. Mhm. te wóoruma woon sax ndax dana ñëw parce que jamono yooyu li ma koy woo du ma ko jot. Mhm. comprendre nga li la wax. boobu ba muy ñëw fekk na lépp mat na mais moom comme début ba da ci doon jàpp. Mhm. yenn saa yi mu jox ma podium. yenn saa mu jox ma sono. yenn mais comme lépp. Mm-hmm. du ma ko su ko mënoon sax man mm-hmm. du ma kasas kon damay nekk yambar quoi parce que suñu koñ la dëkk day participer comme benn mafaal ni muy participer wala Vieux Diop Saada Ndiaye Babacar Guèye wala benn mbay wala benn maaj ku nekk ni muy participer quoi mm-hmm. mais pif sama gaañ la euh, moo tax ren sax moom laa ko pare moom nga pare ne bay sa wew tànk bi ren bay sa wew tànk bi kañ la bon le 26. le 26 bii nii 27 euh, mais activités yi commencé na bu yàgg quoi. ok activités yi expliqué ñu activités yi. bon daf defoon nañu tournoi de foot. petite mhm. petite catégorie. Mhm. comme festival mi ngi daan am ci pag bi. Mhm. xam nga mais ci pag bi yàlla defoon ma am décès quoi ci pag bi. parce que le 6 avril la waroon nekk. moo tax ñu yóbbu ko le. le 26 quoi 27. xale yi dina leen primer xale yi pour permettre xale yi bu feet amee ñuy bañ di dox fenn. dañuy wax tournoi bay sa yow fa dajalee ñu mën leen di garder quoi. concept boobu defal nañu xale yi secourisme jàngal nañ leen si tuuti. Mhm. xam nga ak monsieur monsieur monsieur Gaye Vieux Diop. Mhm. xam nga ak partenariat ak benn waa Croix Rouge yeeg yooyu. Croix dañuy def feu de camp. Mhm. dañuy def saay fi lu bëri dinañ ko def quoi ak li yéen def si social xam nga ñun social dañu jàngal ni boo koy def sax waroo ko wax ñu gis ni ren dafa am tamit beneen show bu bu waat ci bay sawew tànk muy show de. show de dof show de dof ñi koy defee Racine Club euh, show de dof bi expliqué ñu si tuuti euh, comme temps bi ñuy xoj. show de dof mooy. mooy show bo xamni ni deux dof crew moko mom moko mom spécialement mu invité deux dof crew ñooy jouer lépp wala. non dañ ci invité ay artistes parce que soirée ni hip hop lay nek tout hip hop. day am entrée wala. entrée entrée ñaata. entrée 3000 ok mais prévente yi 2000 2000 waaw euh, Racine Club. non Kangé. Kangé bi ok euh kon euh, dañuy dañuy dañuy terminer émission bi euh tënk. si tank lan nga ñu mën a wax sa dernier mot après ñu jox ma jox moom mu wax dernier mot après ñu tënk émission bon sama dernier mot mooy maa ngi woo képp kuy fans de Dof Crew. man moom maa seen premier fan. waaw képp ku bëgg ma jóg képp ku bëgg ëxlu. képp ku bëgg hip hop. ñu ngi lay woo le 26. au clair ci tali bi plein air la. Mm. outdoor artistes yëpp. invité nañ leen ñoom ñagas dinañ fa nekk ay ñuul kooku Kestro ko si xidma Bamba ji Big Taale Tibis RK yow <laughs> tout le monde waa Hitbox ak waa Saint-Louis bi yëpp <laughs> <laughs> waaw xam nga waaw loolu benn set ñu dem Kangé mi euh, euh, show de show de dof na gars yi jënd prévente yi ñu ngi fi yéemaan kon ñu ngi lay jaajëfal euh, yéemaan ma Diop sa dernier mot waaw di gërëm waa Saint-Louis TV di la gërëm yow gas bon di rafet rafetlu seen taxawaay ci hip hop Galsen ndaxte lii genre affaire yi moo manqué Saint-Louis quoi yu mel ni yu bëree rek di lancé walla appel gars yi leen ñu may ay télé xam loolu la sa rabu ndar manqué quoi di shout out gars yëpp bëggee de dof 27 avril yaa ma <laughs> <laughs> lay demee euh, gars kon leen jox dig daje rendez-vous festival bay sa wew tank au clair buñ fa jugé <laughs> le 26 là, non. le 26 au clair le 27 maa <laughs> ñu ne waa ah? ñu tëj ah dama la le 26 au clair gars yi di leen jox dig daje le 26 <laughs> le 26 bàyyi sa weewu tàgga ah? avec deux def courrier au clair le 27 ñu def show doon def quand j'ai mis ah boobu moom du yomb man maay première euh, sponsor bu fay ñëw ànd ak sama Saint-Louis TV ñu couvrir ko ah du yomb gars yi kon di leen jox dig daje ci yeneen numéro seen émission Dekkil Rap pra Saint-Louis respect respect respect dattimo bebe i lokonen Cyklolär, access dans sonen Både den går